naka koor gi dégg naa da nga ragal euh déedéet déedéet man ragaluma koor yow xam nga ne yow tamit nak soxna si man man ah doomu kaw kaw la ñu dañoo ñame koor dañu ci mag dañ ci yaru mag ci. quartier général bi loy réserver téléspectateurs yi. est-ce que duñ ko baye mu don surprise waaw. invité ya len di gérer. euh déedéet du man dong dama dama ci dama dama ci joxe sama wàll rek. dama ci nañ xaar invité yu djegi day. waaw bu ren bi quartier général bu ren bi waaw yu bare bare sax kay. dina lu bëree bëri wàllu culture wàllu sport surtout football bi wàllu làmb ji wàllu politik bi wàllu diine ji na na xaar rek na gaa yi xaar. fii nar na toj. nu ñuy wax rajax waa jeex na. <laughs>